des transports terrestres et du nga xam ne moo yor lépp luy jëm ci wàllum dem ak dikk euh, ñu lëkkaloog organisation mondial de la santé mooy kuréel gi nga xam ni tey moom la mbootaayu xeet yi yabal pour muy saytu lépp lu jëm ci wàllum accident ak li ciy faatu xayma yeeg yëpp rapport mondial bi ñoom ñoo ko yor yor ñu ànd ci aussi ak partenaire technique lu mel ni banque mondial muy branche am bu ñuy woowee SSATP ñu ni nañu comme dëkk adduna bi manqué nañu Euh, déclaré fukki at yu yees mooy décennie bu bees jëm ci xeex wàllum kaarange yoon ci at bi ñu génn la daje woon fële ca États-Unis muy New York euh, réewu àdduna bi yëpp daje mànkoo ni fukki at yi ñuy dëgmal bëgg nañu wàññi liy faatu ci tali bi ak li ciy gaañu euh, téeméer bu jël juróom fukk mooy genn wàll gi loolu nag dafa laaj plan d'action dafa war dafa laaj taxawaay waaye dafa laaj dëppoo ci na ñuy xayma ñi ciy faatu moo tax ñu ni ah comme ñun ñii Afrique daanaka boo xoolee lii daw ci oto ci àdduna bi téeméer boo jël ñun ñaar dong lañ ci am ci Afrique te ñaar yooyu ñu am ci Afrique téeméer boo jël ci liy faatu ci accident wala lu ci gaañu lu gaañu lu bare ñaar fukk yëpp ci réewum Afrique la am. kon loolu dafay yella dafay jaadu ñu bàyyi xel bu baax ci nu ñuy saytoo mbirum kaaraange yoon te pour nga saytu ko nag il faut nga may xayma moom la ñuy woy donné alors xayma yooyu nag toujours dafay indi ay jafe-jafe ne woon naa léegi ni organisation mondiale de la santé moom la ñu sas si àdduna bi pour muy publier rapport mondial si wàllum ñuy daal ñuy faatu ak ñuy blessé si accident à chaque fois ñu publier seen rapport rek da nga gis àdduna bi yëpp ku nekk di contester lu ñu bindal ni moo faatu suñu réew bare na du loolu amu fa mu doon ay contestation moo tax àddina bi yëpp manko ni léegi nag nañu booleeg Nations Unies boobu non en fait euh, euh, organisation mondiale de la santé boobu banque mondiale partenaires yi ak pays yi ñu wax xalaat teg naka la ñuy xayma données yooyu ñun yëpp ñu dëppoo ci buñ ci dëppoo ba pare nag ñun nag ñu ni contestation dootul am xayma yooyu nag dina permettre ñun suñu ay politique yi mooy suñu ay njiit yi ñu mën jël ay dogal yu wóor dogal yi nga xam dina am jeexital ci wàllu xeex bi ñuy xeex wàllum kaaraange yoon